ku ma gën ngir taxulaa bon ngir Mamadou Lamine mooy sama gën aleykum salaam wa rahmatulah ah kooku de Cheikh Malick Sène mu sëñ Fallou la. waaw ah kooku la Sam na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax Cheikh bi. waaw ah, sant maa ngi lay ziar. noo noo defal coono yi. ñoo ngi sant ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah. yàlla na sama borom xeeb te dolli. alhamdulilah gëj na leen ñu ngi koy jégalu bu baax na ci yitte rek xam nga ak suñu réew mu xat mi moom. waa dëgg la kay dëgg la kay. walaay ñu ngi lay ziar bu baax di la ndokkeel ci weeru sel wu mag wi ñu nekk. waaw ñu ngi leen di delloo di leen ndokkeel te di leen ak àq te di ngi lay baalu àq bu baax di la baal àq yooyu tamit macha allah. waaw di ñaan yàlla ñu ko teewee nekk ni déwén. te baax yu bëri bëri. amiin yaa alamin ñu bokk lépp te fekkee ko. waaw amin amin amin jaamu yi buñ ci jaamu suñu borom jéggal ñu te nangul ñu suñuy jaamu si daraja yaa rasulillah alayhi salaatu wasalaam amin yaa rabbal alamin yàlla na ko yàlla nangu amin na ngeen def nag ñi ngi sant yàlla bu baax baax macha allah rabbi waaw sant alhamdulilah ah xanaa kay bokk na ci sax ni nga ko waxee léegi rek wax dëgg yàlla weer wu sell wi nga xam ne ci lañ ne wax dëgg yàlla suñu xel day dem ci nit ñu baax ñi nga xam ne kenn ku ci nekk ak góor yàlla yi nga xam ne sama borom am na lu mu leen jagleel dëgg la yow nag gannaaw bi nga xamee ni wax dëgg yàlla ñu xam ne alalu suñ fàllu nga. waaw dëgg la kay macha allah. waaye tamit doomi suñ fàllu daal di ñëw feddali kóllëre googu seexalaat la yi tamit. dëgg la. waaye nga jël loole lépp dëxëñaat ko di doxe ak taalibe xam ne daal yow ab jaam nga te mënoo weesu lu dul jàmm ah macha allah waa jëndee nañ lépp ab taalibe taalibe bi daal. wallahi ndeysaan. waaw waaw tarfakalla macha allah. xam googu ñu xam nekk daal ñu gënal rek. walaay ndeysaan rek abadan day man. walaay xam googu ñu xam loolu nag ak yëg googu ñu yëg ko nag moo taxoon ñu ne wax dëgg yàlla weeru sell yi buñ ci nekkee faaw nu xool góor yàlla yi bés bu nañu jël ci kenn. dëgg woo ko laaj ko tolluwaayam ak yëg-yëgam ak lan lay mën di dimbalee askan wi rawatina ci suñu réew mi nga xamante ni fu ngeen mën a nekk itam fii leen gënal. dëgg la waaye xëy na mënta ñàkk xidmatin bi tax na ba ngeen wan ñu ginnaaw ne ci xidma bi waaye lu ngeen amit fii ngeen daw ñëw indiwaat ko fi. waaw loolu moom dëgg la. tax ñu ne woon nañ la woo bëgg a barkeelu lenn ci say kaddu lenn ci li nga xam ne tam sëriñ bi dimbalee na la ko rawatina ci weeru sell wi loo xam ne di ko mën a digal tey askan wi kenn nga xam ne ku ko ci def itam maanaam dina ci mën gis boppam yëg ci boppam xam nañ ne am na loo loo xam ne sa yëfu bopp la yaa ngi nag en direct wax dëgg yàlla ci plateau Salam Vision. ah maa ngi en direct. <laughs> Ah, waaw seex bi ñun bu buñ la woowee rek en direct lañu lay woo ndax ñun lu lu lu jëriñ jaam ñi rek la ñu moo tax ñuy woote. waaw dëgg la kay macha allah. waaw gannaaw suñu borom dogal ci sa jëmm ji nag mu néew mu bëri xeebuñu ko. dëgg la dëgg la. ñàkk xeeb boobu nag moo tax ñu woola en direct bëggoon nga baaxetee askanu Sénégal rawatina mbokk internet yi nga xamante ni ñooy teewlu Salam Vision saa su ne. dëgg la. te luñ leen fi dégtal lu ne rek lu lu leen mën a jëriñ la. dëgg la moo tax tey ñu tàmm la taanu la woo la bëgg a wéccanteeg yow lenn ci kàddu loo xam ne di nga ko digal askan wi loo xam ne ku ko ci def itam bu soobee yàlla bu bu ko defee dina ci gis njëriñ. dëgg la te xam naa du du du looy bëgg sax waaye noo ko sàkku ci yow ndax xam nañ li li li am na am na loo yor daal am na am na sa yëfi bopp boo yor moom. waaw sant yàlla rek sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah macha allah. ah barkalla macha allah euh, Sam xam nga weer bi moom ni ñu si waxee mooy. Euh, di si jaamu suñu borom euh, di jégalu. Mhm. di def ay istighfar. tey mhm. tuub tey jégalu tey sàkk ay sarax. Mhm. surtout waaw loolu moom dafa am solo si weer bi ñu nekk muy weeru Ramadan. waaw képp kuy jullit moom. Euh, weeru njéggal la mbirum tuub. nga war di def di tuub di jégalu suñu borom. ndeysaan waaw tey sàkk ay sarax. waaw maanaam euh, koo mën a dimbali si wàllu ndogu. Mhm. nga xam ne di nga jël si sa ñaq. Mhm. jënd ko ay ndogu. Euh, comme ñu ko Sénégal torfakala macha allah at bu jot luñ koy doxalee. wala ndeysaan joxe ndogu yi. ak tamit euh, mbokku Baye Fall yi torfakala ñoom dañoo xam li su weeru Ramadan daanaka weer yëpp dañuy joxe. Mhm. ay ndogu. ndeysaan dañoo xam code ba. waaw dañoo xam code bi kon nag loolu la daal. macha allah. waaw waaw ah nag li ma laaj nag rafetal la. Mhm. dafa fekk ni sax euh, tey dama yam si sama benn bagage bi nga xam ne. Mhm. Euh, maanaam daal torf macha allah c'est divine. fu mu jógee. Mhm. waaw bagage bi nag moom fu mu jógee daal euh, maanaam du ma ko mën a gum wax rek ndaxte lu sori la. <laughs> macha allah rabbi. waaw mooy li nga xam ne daal képp ku koy jëfandikoo. ak salaatu mhm. waaw salaatu bi nga xam ne daal euh, salaatu ala nabi la. allah. maanaam ni ma la ko mën a expliquer c'est divin. Mhm. alhamdulilah waaw lii moom amul kenn kenn ku ko yor ku man. allahu akbar alhamdulilah maanaam sant yàlla te jëfandikoo euh, nañ ko. Mhm. gis nañ njëriñ bi. alhamdulilah mooy képp ku nga xam ne daal yaa ngi ko di ko def. lépp loo musoon am ci àdduna te nga ñàkkoon ko mhm. euh, maanaam xëy na nga nekk si natt suñu borom mhm. bu nattu la ba nga xam ne nga nekk say torof torof ñàkk li nga amoon yëpp mhm. boo koy jëfandikoo incha allahu lépp li nga amoon dina dellu si waat sa loxo waaw maanaam daal euh, tey ji misaal boo amoon peur ñàkk ko te na jamono dab la nga toll say tolof tolof jaay ko mhm. fay say bor faj say aaju mhm. boo boo si saxee di nga ko amaat maanaam daal suma la déggee bu baax seex bi mooy maanaam daal tey jii koo xam ne yàlla dénkoon na ko barke wala daraja bu ko ñàkkoon tey jii bu tax bu saxoo salaatu bi suñu borom dana ko delloowaat la mu yoroon dina ko delloowaat si li mu yoroon waaw maanaam daal mbirum suñu borom képp ki nga xam ne daal dal na sa kaw ba nga xam ne daal euh, comme si misaal yont yàlla ayuba mhm. fisam xam nga ko maanaam euh, amoon euh, royauté am nguur am alal yàlla nattu ko mu ñàkk lépp feebar mm-hmm. Mm-hmm. ba génn dëkk bu mu nekkoon lépp mm-hmm. su soobare suñu borom yàlla joxaat ko lépp delluwaat ko lépp euh, mu amaat njaboot amaat alal delluwaayu dellu si royaume bi mu yore woon alhamdulilah te salaatu bi tamit si loolu lay dox macha allah macha allah. waaw lépp lu waaye amoon daal te ñàkkoon ko rek. Mhm. boo amoon liggéey ñàkk ko. Mhm. boo saxee di nga amaat liggéey. alhamdulilah rabbil alamin. waaw ab soxna si nga xam ne amoon na borom kër ñàkk boroom kër maanaam xëy na sëy ba yàlla weddi. Mhm. bu saxee dina amaat borom kër. bu góor it noonu. waaw te ba pare ku si sax it euh, maanaam pauvreté daal. Euh, tàggoo ak moom ci yow. ñàkk ak ñàkk daal tàggoo nga ak moom. ak ak da ngay tàggoo ak ñàkk. Mhm. bu dee ab wéradi da ngay euh, am wér. maanaam daal tolof tolof boo mënti nekk rek daal incha allah di nga si génn. kon daal lii la code boo xam ne daal code spécial la boo xam ne daal moom <laughs> xettali doomu aadama bi moo ko tax a jóg. waaw te ab salaatu bu gàtt la. est waaw kéemaan la ba noppi tamit euh, wérdi bi moom. Mhm. téeméer yoon rek muy cent eh. da koy def suba cent ngoon. est-ce que. soxlawul. Euh, soxlawul ay ay junni yu bëree bëree bëri téeméer suba téeméer ngoon. soxla soxlawul décortiquer soxlawul euh, euh, maanaam jëy suuna. Mm-hmm. junne. Mm-hmm. loolu yëpp déedéet téeméer suba téeméer ngoon. est-ce que. waaw salaatu bi daal loolu la maanaam daal. Euh, ba d'avance billahi a sheytaan rajim maanaam ku koy def da ngay zikkër astaxfirullah mhm. téeméeri yoon doo ngay dikk si salaatu bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim mhm. ya rabbi ixfir li ma taqdama wa ma taqara min zanbi salaatu bi loolu kese rek la allahumma salli ala sayyidina muhammad mhm. wa yaa rabbi ixfir li ma taqaddama wa ma taqara min zanbi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yaa rabbi ixfir li ma taqaddama wa ma taqara min zanbi maanaam daal julli si yonent bi mhm. ñaan suñu boroom mhm. mu jéggal la tey bakkaar mhm. njëkk kii mujj mooy sa bakkaar yi nga amoon démb ak yi nga am tey maanaam am salaatu am njéggal la jéggal yërmande suñu borom mooy dal ci sa kaw. Mhm. lépp li nga xam ne euh, daal euh, niñ ko waxee nii rek loo ñëw. ndeysaan ah seede xam nga maa ngi fi ci réew nag. wallaay <laughs> ndeysaan. il est cinq ñu ngi salaatu sama euh, beneen téléphone bi. ndeysaan mooy noddu. waaw waaw fii ñu ngi salaatu. ndeysaan ci yàlla waaw jamono jii maa ngi nii si Europe. Mhm. Euh, nekk des déplacement maa ngi fu ñu toll nii si Paris. Mhm. maanaam lii ab seede la. alhamdulilah maa ngi wax ak yow ñu ngi salaatu. ñu ngi salaatu wallaahi la te génn ñu yàlla alam nabi nga wax. Mhm. Euh, dama koo xam. Mhm. salaatu bi tarfukala macha allah ba mu nekk ak sa wàllu léegi. c'était en 2007. 2007. waaw xisa bi nag. pour nettali ko dafay xaw a gudd mais maanaam daal si gàttal c'est divin mhm. waaw képp ku si sax daal bu soobee yàlla mhm. incha allahu nii ma la ko waxee woon kon daal mu mel ni fi loo amoon mhm. nga ñàkk ko suñu borom dina la ko joxaat moom daal gannaaw gannaaw astaxfirullaah téeméeri yoon moom itam téeméeri yoon ngay def salaatu bi suba ak téeméeri yoon ngoon moom nga téeméer def suba nga def téeméer bu nga def téeméer maanaam suba euh, boo jëlee fajar wala boo jëlee suba ba Mm-hmm. bu ngoon it mm-hmm. boo julee takkusaan wala boo julee timis wala boo julee gee mm-hmm. nga def ko maanaam daal xëyee benn bi fanaanoo benn bi baal ma ma ni nga xëyee benn bi suba teel bi fu boo mën tëddaalee bi ci des waaw waaw téeméer suba téeméer ngoon téeméer suba téeméer ngoon sax fi rek bu soobee yàlla képp ku si sax waaw incha allahu nii ma ko waxee incha allahu suñu woon dina la jéggal say bakkaar delloo woon lépp li nga xam ne suñu borom mosul na la ko xéewal. waaw ba képp ki nga xam ne sax yaa ngi si torof torof nekk si napp nekk si kaso. Mm-hmm. Euh, joxe naa ndigal salaatu bi mun na koy def. incha allah yàlla dina ko dimbali génne ko si torof torof. macha allah maanaam daal salaatu bi daal si li muy def mooy képp ku nekk si napp suñu borom. Mm-hmm. Euh, boo koy boo si saxee rek incha allahu suñu borom dina wàcc yërmande sa kaw. Mhm. jéggal la nga mhm. génn si say tolof tolof. Mhm. lépp loo ñàkkoon suñu borom delloo la ko. macha allah. waaw tarfakalla macha allah kii nag maa ko baaxee mbokku jullit yi suñu mbokk yi. wallaay rëy na lool. waaw dinaa la ko jox. waaw xam naa ne bu fekkee sax nga kii euh, nga jàllale ko sa page YouTube incha allahu. incha allahu kooku dañ koy dugal léegi sax ndax mi ngi à direct nii ba pare waaye xam naa ne dinañ ko defaraat dugal ci image yi image salaatu bi su ko defee mu gën a mucc ayib dugal ci tam xëy na image yu jëmm ji wax ak ñun te xëy na ñu bëri xamuñu ko ndax euh, bitim réew gi nga nekk ci xidma bi waaye daal am nañ ci mbégte benn bi ci njëkk. mooy li tax ñu ñoo ko bokk yow moom sama waaye nga xamante ne ñu. ndeysaan. Euh, parce que macha allah ñun euh, taalibe dañ te ñu ñaan nekk taalibe yàlla dogal na comme ni nga ko waxee rek. Mhm. sunu sëriñ. Mhm. Euh, sëñ Cheikh Oumy Mbacké macha allah tubarfakalla. waaw am lu mu def suñu. Mhm. waaw ñun nag ñu élément sëñ Fallou. waaw lépp suñu nekk suñu nag sëñ Fallou la. macha allah. waaw yàlla daal. ñun dañuy dox daal ak démarcation maanaam. Mhm. waaw lépp lu ñu def rek euh, maanaam daal wutuñu suuf li nga xam ne daal euh, mbirum si wala mbirum dara. Mhm, mhm, waaw ñu ngi nag dañoo nekk si weeru koor comme ni ma waxee léegi nii rek. nga bett ma. wallaahi. woo laaj ma lu ñuy baaxee mbokk jullit yi. kon nag maa baaxali mbokk jullit mbokk taalibe yi. macha allah. incha allahu daal képp ku si sax rek bu soobee yàlla. Euh, mu doon lu am solo loo xam ne li tax man la ñu ngi ciy santaat bu baax mooy da nga joxe salaatu bi ci ñetteelu yoon bi nodd jib foofu ci sa wet. dëgg la. kon loola seede la. la ah. beneen bi des itam mooy tey jii bi moo jot fii de Paris. Mhm. sama téléphone. Mhm. Moussa Diop. Mhm. waaw kon nga xam ne tafaka la allah. waaw muy mbirum suñu borom rek. te tey ci bés bi ma koy bi ma lay woo nii en direct nii di bésub altine guddik altine. waaw guddik altine tey di onze avril. Mhm, fukk ak benn. waaw deux mille vingt trois. depuis ci maanaam euh, waaw onze avril mën nañu ne onze avril bi dugg na. dugg na ndax ñu ngi dugg ci ñaar fukki fan lu koor gi. waaw ñaar fukki fan ah, ah moo moo tax ñu nekk en direct ba heure bi ci ci ci ci ci YouTube bi ak Facebook bi ndax. Euh, Salam Vision waaw macha allah macha moom daa kéemaane. waaw dafa may mbir yu ci daje. man ni dafa am ay mbir yu ci daje. yu ci dagg. yu ci daje yu dafa am ay tombé. tombé ay waaw yu ci daje waaw yu ci daje waaw dëgg la yu ci daje torop kàlla macha allah. kon ah tey moom parce que maam Cheikh Ibrahima Fall la suñu waaj. gis nga ko. <laughs> waaw waaw macha allah. doon bésub altine nga ñëw joxaay waat ci salaatu ala bi salaatu boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ ko jagleel moom mu gane woon jamono tam ci bésub altine. macha kon daje yi dafa dafa dafa doy waar waxtu wi ñuy wax yow fii ci ndakaaru ñu ñu ngi ci guddi waaye yow ngi ci bërset. waaw ñu fajar. fajar. waaw ñu ngi si fajar. kon mu mel ni li mag ñi doon wax naan fi ni bu suuf seddee. Mhm. kon suuf sedd na ci jamono bii ñuy wax ak yow. dëgg am na ci ñoo xam ñu ngi ci ay lawraat ñu ngi ci ay salaatu nangam ñoom ni nga ko waxee ndax Sénégal itam lu mën a xew mooy nit ñi dañoo dañoo dañoo dañoo bëgg yàlla. dëgg la dañoo bëgg bi. da leen di jaral lu ne ndax moo waral fi mu toll nii li nga koy waxee léegi joxe ndogu yi ci weeru sell bi leel miskin fanaan ne tudd yàlla di defi conférence. nga xam ne kon Sénégal dañu da bëgg nañu yàlla xëy na euh, ñàkk xam fu ñuy teg seen tànk wala ñàkk xam code bi te lii nga joxe tey code la boo xam ne ci biir code yi la. lii nee naa la c'est divin c'est divin. divin gi dinañ ci ñëwut ndax ci ay jamono moom ni ñu def tey ba wala dinañ la woowaat ñu waxtaanee ko. dinañ ci mën a ñëw mhm. kenn ku ko yor. Mhm. waaw c'est divin li ma la wax nii nag waxu mag la. dëgg la. waaw torfakal la macha allah. 2007. Mhm. ndeysaan. ba léegi mi ngi sama loxo. te te te li tax ñu am ah. yëg yëg woo la ak yaakaar. Mhm. mooy dafa am loo xam ne fekke nañu ko wala dégg nañu ko. dëgg la. xam giñ la xam mu néew mu bari tam xam nañ ne bu dee teraanga àdduna bu doomu aadama di gis ci bëtam rek fi mu ne dara feesatul sa bët ndax am nga lu ne. kaar macha li ngay may sëñ Cheikh mi mi nga tudd léegi oto du tey. dëgg la. te mayu ko benn rek. <laughs> waaw yàlla sant kon loola moo tax ma xam ne li nga wax sànq ne utoo ci alal buggoo ci suuf siiw bu utoo ci feeñ. dëgg la waaye jaamu yàlla nga ci jublu ndax weer weeseelu te màgg ba tax na lu ci waaye def lu baax mu doy kon kon tey ji salaatu bii nga joxe ma jàpp naa ne tey ji man su ma ko defee wala keneen ak keneen ku ko mën a def daanaka lum ci dajal ci tawféex ci ngërëm par force yàlla suñu borom fay la ci sa nga ne loolu nga ci doon sàkku. naa ko ndigal jox naa ko ndigal ñëpp kulli jam yo képp kuy jullit kulli muslim. alhamdulilah jox naa ko képp kuy mhm. naa ko ndigal képp ku koy jëfandikoo yàlla na barkeel. amiin yàlla wax nit yàlla nga si gis njëriñ bi incha allah rabi taala. waaw waaw incha allah. jërëjëf sunu xool sedd na bu baax a baax a baax. xanaa xanaa xanaa tey fi wax la rek kàddu yi mujj yi moom fi ne lan lay doon ndax ni nga ko waxee rek li nga joxe moom leneen luñ ci tegaat sax dootul sax waaye xanaa rek tàggat tàggatoo bi niroog tàggatoo te du tàggatoo. waaw xanaa di sant yàlla rek doole ñaan di ñaanal Sénégal ñëpp am jàmm. réew mi am dal. am jàmm am salaam. milliard balaa Sénégal yàlla na naat. yàlla na yàlla dafa xéwal. milliard balaa ñëpp gis seen bopp. amiin ñëpp di am xaalis. di faj seen aajo ñëpp am dépense. milliard balaa am na ñu dundee am lu ñu def seen poche. milliard balaa la miin. saa yi mu jëlee loolu laay ñaanal senegal yal na ko yàlla nangu te baal ñu lépp ba mooy dalee di ñaanal Sénégal yàlla na mel ni Dugaay. ndeysaan. ndax euh, torfakal euh, def naa ay yoon yoon Dugaay. Mhm. mu yéene senegal mel noonu Sénégal yàlla na raw sax wax. allahumma amiin. waaw ñun ñi am xaalis am lu ñu lekk. am lu ñu denc <laughs> wallaay ndeysaan amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla nañu suñu borom teg si siraatal mustaqim. alhamdulilah am nañ ci yaakaar bu baax a baax. waaw Sénégal sàmm njaboot yëpp. amiin yaa rabbal aalamiin. waaw tool fa kàlla macha allah. merci beaucoup. am ngërëmu suñu sëriñ njëkk Cheikh Mouhamadou Fallou Mbacke. amiin yaa rabbal aalamiin. am ngërëmu Cheikhul Khadim. amiin yaa rabbal am ngërëmu yaa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam am ngërëmu sunu borom subhanahu wa taala moom laa ilaha waaw yàlla loolu moom képp koo am rek daal mhm. am nga lépp waaw am nga lépp wallahi la bi am nga lépp waaw waaw waaw lépp ko sunu borom gërëm mhm. jaare ko si yonante bi mhm, alayhi salaatu wasalaam ak sunu sëriñ mu gërëm wallahi képp ku ko am rek am nga lépp wallahi lazim waaw waaw ngërëm si lépp nekk alhamdulilahi rabbil alamin waaw wasalaam sëñ maa ngi ziar sant nañ la bu baax gërëm la ñaanal yow tam lépp li nga ñaan daal yàlla yàlla bu la ci kenn jiitu ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñaan sama borom. sàmm la guddal sa fan bu baax a baax doole wéral say cër. boo leen say yéene say bëgg ak saw yàlla na yàlla sama borom yeggale ko moom mi dul jeexal dara. amiin amiin amiin barkeb Serigne ba Cheikh Modou Fadal barkeb Serigne Cheikh mi Mbacke moom Serigne Fallou mi sa wasila. amiin waaye tam mm, jullit bu ci xolam sedd bu ne rek lu ci xolam sedd lu ne rek yàlla na la ko yàlla fay suñu borom fay la ko yiw. amiin amiin amiin amiin suñu xol sedd baax a baax xam naa ñu bañ ndax gannaaw salaatu ngeen moom léegi julli gi daal di taxaw ñu ne itam ñu daal di fas yéene. waaw waaw suñu programme rek ñu daal. waaw mbégte lañ am ak sant bu baax a baax baax ci woo biñ la woo rëcc wuñ ko tamit waa dëgg la kay ah yow moom dag maa yow moom <laughs> rek day ko <laughs> ndeysaan yàlla bëri na sutura incha na yàlla mottali lépp dara yéeg Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa ah, salaam dëgg la kay macha allah tabarakalla jërëjëf Seyd jërëjëf Cheikh Malick waaw ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf man ku ma gën ngir taxulaa kon ngir Mamadou